yéeg yëpp da cee ah, bokk ah. salaire yi sénégalais yi bëgg koo xam indemnisation yenn détails yi nga xam ni peut indi na coow ci réew mi ba sénégalais yi jox leen seen baat pour ne leen ñun kat la xewoon ca régime bële lijjanteel ñu lii làq doom dóor doom dañoo bëgg mu jeex protégé naa hmm. Pape Ousmane parce que Pape Ousmane dafa bokk ci parce que nañ ko wax nag ah. rapport yi mënoon nañ koo publier laataa ñoom ñu fi jóge waaw waaw publier publié wuñ ko parce que dañ cee teg cooncu. ah waaw ba jóg na ne euh, ngóone ci man la far. waaw ma génne bi dara lu koy gàkkal. loolu amatul et mieux dañ leen a dégg ci ay coow yoo xam ne bi ñu paree dañ leen defal promotion. waaw nekk ci ministère de la jeunesse. ay postes yu ñu jox la ay ay ay ay mbir. Mm. ne la càmbar ko. ñu dem ba mu am benn sax fit boo xamante ne journaliste bu toog wax ñu ne suba porté nañ la plainte. waaw waaw léegi nañ porté plainte jot na a a le droit de vous poser des questions. Ah. li ngeen jo li ngeen ko nga ne li suñu dërëm ak yor ñun ñoo ko moom ñoom ku ñuy liggéeyal kon ñun ñi très bien xam nga yow balaa nga leeral lii bu Sénégal ñi daan c'est pas tout le temps dama koy wax edmina suñu edminagère nekk kër dama euh, dama koy wax naan ko ñaaña man fa ma nekk mi na daan laa damay liggéeyal nit ñu may fay hmm. dëgg la moom bu ma nekkee sama mi na daan am na keneen man dama nekk mi na daanu yaa ngi koo bax yankoo ba nekk mi na daanu keneen mais c'est comme ça mais ñoom ñi ci kaw yàlla moo dogal ni nu Sénégal moo leen di fay weer l'argent du contribuable lañ leen di jox. Hmm. di natt budget di leen jox. di xaar ci ñoom ay réalisation euh, ñu la joxee xaalis. Hmm. ne la liggéeyal boo noppee dañuy saytu. bàyyi présidente bi del wax buy te bu ñu saytoo bu ñu gisee ne yow am nga dara loo xam ni luubal nga ko nga def ko mu nekk ci ci loo xamante ne leeru ci suñu bopp. wala mu leer dañ lay laaj. te bu la laajee da nga war a rendre ay compte. non Beyoncé yëngu na nag. dossier bi dafa yëngal Beyoncé mais loolu mooy dëgg. Shakira ji nga li te yaakaar naa ni ñoom ci 2014 la euh, ñu tàmbale non 2012 la ñu tàmbale. waaw yàkkamtee xeex la dëgg la. fi ne bala nga naan naam day fekk nga defe ba toog. Mhm. ñoom ñu ngi soog a ñëw ñoom demandé wuñu rapport yi xam nañu demandé la publication des rapports tey mën nañoo sant yàlla tax day ku xool wala xam nekk ci rapport bi mhm. ci mhm. président de la république ak premier ministre ministre am mhm. ñoom ñoo santaane pour ñu gis rapport yi léegi nag la moo tax ñu ñu santaane ko wax naa la ko pour ñëpp yem ci o même niveau d'information ñu xam lan ak lan la rapport yi ñu tegoon conco yëpp de conco nañ ko jomaa décomptabilisé na ko. nañ ko kon ça veut dire que tey nekk nañu en possession des des rapports. Mhm. nag protection mënagul am. Ah. ndax ñoom santaanewuñu rapport te bu mhm. ba pare ba pare xam nga lan moo tax. ma la rek sànq dafa am lu am solo loo fàtte mhm. yëpp yëpp yëpp dama doon laajte bu ngeen paree yéen ak internet ñii nan lañ lan lañ a def waaw wax nga dëgg xam xel day fàttu ñii dama dama yaakaar ñoom dañoo iñaane xam nga nga jiite nit. waaw soxale ko iñaane ko parce que ku mën a xool ay milliards yoo xam ne askan bi war nañ ci bénéficier wu nga ne ko tungaañ lekk yaa sa njaboot bu la jigéen ma xam ne yow mbëy nga <laughs> ay 14 hectares ci benn nit nit ñi di louer 20 hectares ñii amuñu fu ñu dëkk ñi amuñu liggéey yow loolu yëpp nga jël ko si benn benn euh, minuscule de nit dafa ëpp benn gang bu ndaw boo xam ne benn cercle restreint la mhm. benn groupe kese la ñoom ñooy am ñooy jaay ñooy jënd ñooy mayante ci seen biir léegi ñooñu nga foog yër nañu askan bi léegi est-ce que ñooñu tey bu ñu taxawee di leen traquer askan nañ am benn xolu yërmande ci ñoom mhm. gis nga euh, Pa Moussa dafa wax lu am solo keroog Pa Ousmane mhm. muy ñu criminaliser li nga xam mooy de ah, deniers il ah, le faut parce que mënuñu la jàpp nangu sa alal wala nga daw wala nga def ay prête-nom te ci jamono ji ñu ci bari commencé nañu nag di rawale la am parce que dañ koy jox ku mel ni nab wala ku mel ni ngóone ko xam mais di ko di ko rawale léegi nag képp ku sàcc non seulement comme ni ñu wanee rapport yi mhm. waxaguñ dañoo épinglé présomption d'innocence nañ ko respecté mais si toutefois ñu jébbal mbir mi procureur procureur jébbal ko ñu war a def ba nga taxaw ci kanamu yoon ba nga sàcc dañu taxaw ne la yow mii sàcc nga. Mhm. condamné nañ la la nga sàcc da nga delloo mais ñu criminalisé ko parce que ñëw tëdd ñaari weer ñetti weer génn dafa yomb. te loolu sax day wàññi excès de zèle bi parce que ñoom ñoo yor te li ñu yor moomu ko parce que des fois li ñu doon arrogant Ah. léegi nag bu leen leeree ne amul benn protection lu waaye guux di nga ko gukki mm. génne ko delloo ko askan ah boo rombee di wàcc say mbagg te xam ne yow ki ngay ajal say mbagg di ko romb ak di ko jaay affaire moo la fa fal ah, te xaalisam ngay lekk léegi nag publication rapport dama bëggoon rappeler benn phrase rek bu ndaw avant que je n'oublie parce que maa ko téye sama xel boobu ba tey euh, loolu moo tax ma fonk Thierno Alassane Sall mm-hmm. ci fàttali moom rek mu lañ fi joxoon benn poste res ko dénkee ASECNA mm-hmm. mu ne liñ c'était le ba léegi man nit kooku loolu laa koy xoolee. loolu laa mhm. ko fonke wuute nag ñi nga xamante ne dañuy laal ñaar ñetti salaire beneen ba ca topp indemnisation ngeen tawi ko ay vingt millions dix mille ngeen nan ko duniix lekk. Mhm. c'est-à-dire que man Pape Ousmane ñii même bu leen askanu Sénégal baax baale. barki Serigne Bamba ñii ñii ñii la ñuy suul ñii ñii mbelentaan yi yeeg cest à yenn espèce créature yi nga xam ne yàlla koo sàkk di leen keccati di leen keccati di leen te xoolal man dama leen yéene lu métti duma leen baal dara parce que ñii méttit bi ñu teg askan wi non seulement danoo am fit arrogant teg ko ci am ah, fit arrogance bi ngoone ak jékki-jékki allo waaw kii damaa jotee ak moom leen ñu jël si ko mënuma supporter loolu lañ ko defati de ñàkk jox cër gi ñu ñàkk jox cër doomu aadama beew bi ñu beewoon waa ñoom xanaa xamuñu ne yàlla suñu borom moom moom lay neex mu saxal lay laaf ngay naaw heure bu ko neexee mu ne ko dam mit dam yow dootoo naaw dootoo def dara li muy bëgg bëgg nit yëpp bëgg nit ku beew ñii ñu romb nañu beew ak lu la mënti dénk nga xam ne lii kat dénkaane kese la moom ma ko nga dal mais waaye damaa nekk ministre dama nekk DG def sa 4 4 vite tenté yor sa téléphone ku la neex nga woo buñ la waxee lu la neexul nga nga nga nga yónnee nit ñi ne dóor leen. wala saaga leen wala menacé leen. conc rek moo waraloon bew. conc bi dañ na. moo tax wax la mhm. bi sax moom moom borom conc bi sax. Mhm. baalagun ko. concam attanatu ko. déedéet pour moom mu xam ne baalagun ko. moom mii. dégg nga ma la. moom mii nga xamante ni 12 ans balaa maa dee ñu koy tëkkale ak koo xam ne mu ngi door a am weer. <laughs> man damay bëgg a gaañu ci réew mi. yow ku fi am fukki ñaar mm-hmm. même bu fekkente ne da nga fay fekk réew mu coppatiku yow da nga koo yàq ba mu yàqu yàqeet yàq valeur yi mm-hmm. yàq jikko yi yokku sañ-sañ bi yokku arrogance bi nag parce que kii en fait man je peux pas lui pardonner beaucoup de choses j'estime que moom régime am bokk na ci régime bi gën a tar gën a metti ci askanu Sénégal et sur tous les côtés nag amul bu sedd fépp ay baax ils ont fait de mal beaucoup de aujourd'hui je n'ai reçu aucune émotion quand moi je l'ai vu sortir du palais génn dem aéroport dem yëguma ko sax awma benn xeetu émotion empathie yërmande awma ko awma ko mhm. sincèrement ci moom damay wax te yàlla rek a tax parce que kii bakken yi fi joto doon mënuñu ko fàtte mhm. te li ma ci gën a metti mooy ne moom dafa jiite maanaam dafa jox exemple yeneen ñi mu àndal ñëpp ñu xaw a roy tuuti ci jikkoom mhm. mais il y a eu de ces ministres ici Pape Ousmane nan arrogance bi ñu wax ak sénégalais yi lan oh la man ma ni arrogance bi sax mënoon mënoon na sax su dee ni am na liggéey bu efficace bu ñu yëg sax mun koo compenser mais man xam nga man sama sama man sama non waaw man xam nga laa xam man sama jaaxle xam nga fan la ne mm-hmm. c'est-à-dire tu te ni pendant douze ans ñii seen dara manqué wul man sama problème foofu la ne. seen lépp a ngi tolloo. cest yéen ñun bu ñu fi tegee pour lan la su fekkee ba dafa rey boppam. taxawal lu mhm. mel nii def ci lu loolu ak loolu investissement. et eh, bu ñu tëkkaleeg ñi dafa am non dama lay jox exemple pour ñu comprendre fi may waxee. man sama sama frustration dafa am feneen fu mu nekk. vas-y te loolu dafay góomu. Mhm. Afrique te yeneen réew yi foofu la ñu mënee xam nga fu ñu mënee mooy. Mhm. bu ñu lay tànn c'est sur la base d'une compétence tegal la benn objectif di la évaluer ba pare nag liñ la tegal liggéey bi mooy mooy day méngook liñ lay jox ak liñ lay fay ak ci conditions yi ñu lay teg parce que conditions yooyu ñu lay teg du pour sa confort c' est pour que liggéey bi jaar yoon. Mm-hmm. c' pour que liggéey bi à la fin bu ñu la évaluer gis ni résultat yi ñu doon xaar am na. pour milliards yi ñu lay mais pourquoi jantre cinq millions de francs CFA ku baax weer. boole ci ay indemnité bu ma dee cinq cent mille francs CFA. et des privilèges. yu yokk après ci diggante bi. boo jàll sax ñu. jëlal na képp ku am poste de direction ci réew mi. bu dee yooyu nga am ak yu ko ëpp ci ay avantage boo ci sàccum tey pour ban finalité. sàccum tey rek mu bàyyi ñu réew moo xam ni foo laal dafay metti on a comme l'impression que ni dañuy delluwaat à zéro pour reconstruire ce pays man loolu mooy sama. frustration de 1960 jusqu'à nos alors que chaque année on a commencé à zéro. bu ngeen seetloo budget ñu tàmbaliwaat bu Sénégal chaque année dafa yokk. Mm-hmm. ndax kat. tax na suñu productivité yokk ndax tax na suñu performance publique yegg ci niveau buñ ko mën a envier pendant que réew yi ñu wër coco réew yi ñu wër gën a sonn